tey ajjuma ñett fan ci mois de décembre deux mille vingt et un il est six cinq minutes fii ci diwaanu Bamako ñu dikkee yéen ci xibaar bu tiis bi ñu xëyee foofu ci biir réewum Sénégal bu sukkandikoo ci rek RFM ñu ngi tàggee léegi kii di Lamine Diack nekkoon ministre nekkoon maire foofu ci biir réewum Sénégal jiite woon IDAF moom la ñu wax dafa génn àdduna léegi ci juróom-ñett fukki atam ak juróom-ñett Lamine Diack nag di ku nu xam ku ñu ràññee woon nekkoon foofu la ca Paris bu yàgg. ginaaw sax bi ko tribunal bu Paris condamné woon ñeenti ati kaso yu mu war a tëdd yoo xam ne eh, ñaari at lay tëdd ñu demandé ñu daal di joxe caution ci moom tax mu ñëw biir réewum Sénégal weer yee ñu génn ci ginnaaw rek eh, tey jii nag ñu daal ñu koy tàggi wax ne génn na àdduna ñu war koy jébbal boromam ginnaaw bu nu jullee tisbaar Lamine Diack ñoo ngi koy ñaanal suñu borom yàlla na ko yërëm te xaare ko aljana njaboot gi fi bàyyi yàlla teg ñoom loxo. mu tey ajjuma ñetti fan ci mois de décembre deux mille vingt il est six heures cinq minutes fii ci diwaanu Bamako ñu dikkee yéen ci xibaar bu tiis bi ñu xëyee foofu ci biir réewum Sénégal bu sukkandikoo ci rek RFM ñu ngi ñuy tàggee léegi kii di Lamine jàkk nekkoon ministre nekkoon maire foofu ci biir réewum Sénégal jiite woon IDAF moom la ñu wax dafa génn àdduna léegi ci juróom-ñett fukki atam ak juróom-ñett Lamine Diack nag di ku ñu xam ku ñu ràññee woon nekkoon foofu la ca Paris diir bu yàgg. ginnaaw sax bi ko tribunal bu Paris condamné woon ñeenti ati kaso yu mu war a tëdd yoo xam ne eh, ñaari at lay tëdd ñu demandé ñu daal di joxe caution ci moom tax mu ñëw biir réewum Sénégal weer yee ñu génn ci ginnaaw rek eh, tey jii nag ñu daal ñu koy tàggi wax ne génn na àdduna ñu war koy jébbal boromam ginnaaw bu nu jullee tisbaar Lamine Diack ñoo ngi koy ñaanal suñu borom yàlla na ko yërëm taxaare ko aljana njaboot gi fi bàyyi yàlla teg ñoom loxo.